mbokki jullit yi mbokki taalibe yi defe naa ni jëmm ji kenn doot ko présenté bu ne njoogu rek dañ ciy teg afiya ku ne njoogu afiya xam kook diwaanu galas 37 39 fas Médina defe naa ni tey tur wuy na borom la ñu mën a wax à cause de Serigne Afia liggéey na ko ci kër Serigne Afia Serigne Afia taxawu ko kon tey njoogu bu defee sant Serigne Fallou Serigne Baara Afia ñu gis ko fi du bett kenn waaye mu ànd ak sëñ Galas njoogu ñu ngi lay siyaar ñu ngi lay siyaar Fall mais Galaye maa lay ziar sama frère maa ngi lay bëggee de bilaay maa ngi lay bëggee bu baax. waaw ah, njoogu lii duñ ne gulet ah. Mm-hmm. buñ ne njoogu teg ci aafiya. Mm-hmm. defe naa ni du njàmbaar ndimbalu yàlla la waaye yaa fusoo ci. ba tey nga woote Sorano lu mel ni sëriñ aafiya teewaat fi ndax sëñ Baara fu mu toog rek sëñ aafiya la. waaw sa digganteeg sëñ aafiya ba tey sañ-sañ bi. waaw tey njoogu mën a woote Medina Ndakaaru ñëpp wuy si ko. waaw Galaye di la bëggee di la jégulu bu baax a baax ni muy demee nii euh, di sant rek xam nga euh, nit booy def dara bu sottee rek day sant ko yàlla la booy waaj ba mu des cinq minutes sax yàlla mën na def luy tax affaire bi du am mun nga nekk ci dara ba ci digg bi yàlla def luy tax ñu ne kon dañuy sant bu baax a baax a baax a baax a baax man nag lii mooy sama vie man lii moo may dundal maanaam may bégal nit ñi mooy samay moment yu gën a neex sama àdduna su ma koy def damay fàtte samay problème damay fàtte lépp feneen laay nekk ba pare man dama bëgg sëñ Touba quoi kon di sant sëñ Afia rek xam nañ ko yàlla fayal kenn amul fayam Afia waaw ginnaaw sant Serigne Afia tey ci biir sant Serigne fàll bi sëñ Afia teew fi en tant que en tant que taalibe di sikar gis sëñ Afia ci sa kanam muy sëñ Baara Ndiogu loolu bi nga ko yëgee ci biir salle bi. loolu moo war. képp kuy bëggee sëñ Afia képp ku bokk ci sëñ Afia képp kuy yëg sëñ Afia teg nga njóogu foo tegul kenn ndax sëñ Afia da koo teg fu mu tegul kenn loolu moo war loolu dañ koy dañ ciy bëgg waaw dañ ciy am bëgg tey ginnaaw bi nga dëkkee Fass Médina di woote nit ñi si ñu dul Fass ak Médina loolu lu ko may njóogu waaw nit ñi ñooy baax nag quoi nit ñi ñooy baax ba pare ay way wala lépp lu jëm ci enregistrement day law quoi day touché koo xam ne sax xamoo ko soo amee bis mu ñëw vraiment nit ñi dañuy bëggee Ndiogou Afia quoi voilà voilà. waaw bi nga wootee comme nit ñi ñëw nga gis leen ñoo xam bokkuloo ak say dëkkaloo xam nga dañ ne nit mën naa liwe ay seize. Hmm. waaye kenn mënta liwe ay nit. tey nga woote Fass ak Medina teewoon kese mën na ne dafa jege mbokk yi waaye ñeneen ñu dul Fass ak Medina di leen gis ci biir nit ñi. surtout rawatina ñëw boo xam ne da ngay vraiment kon ma nga leen di sant daal di santaat sëñ daal parce que yéeme na quoi mais ku xam démb gis tey da nga xam ne sëñ Touba daal tontul na ma sëñ Touba sagal na ma quoi parce que koo xam ne tey boo échegoon dañ naan moom moo tax kon loo am rek nañ ne moom moo tax ndax tey bu ma échegoon dañ naan sëñ Touba moo tax ndax commencé woon naa ko dégg. dina torox jàngam yàkku na nanguwul dara def dara naan day way sëñ Tuubaa rek su toroxoon dañ naan affaire sëñ Tuubaa la topp ba mel ni kon tey buñ ne dara ay yooyu yëpp c'est bien beau mais sëñ Tuubaa kon dafay mel ni liñ naan tayam ju ne gàccal na démb waaw kasa. dafa mel dañoo dégg nga ne boo échegoon ñu ne sëñ Touba bi daa am ay baat yoo doon dégg ba mu encouragé la wala tey fii nga toll comme ni nga ko waxee boo échegoon ñu ne ci ay tartar dund la wala tey weccee bi tey nii ba tax nga di ko yëg ba wax ni soo échegoon ñu ne sëñ Touba la. xam nga man dèjà lépp lu may wax rek lu may wax rek dama koy seetantal boo seetloo ren def nañ def nañ soraano boo xam ne. dew rajo dew ma télé parce que wax dafa garaaw wax dafa garaaw li tax ma ne la lépp lu réussir ci man lépp lu baax ci man lépp lu ñuy gis ci man ba di ci yéemu nañ nañ nañ ne sëñ Tuubaa la nañ wax sëñ Tuubaa la mooy li ma la jox rek may la tey bu ma échegoon dañ naan sëñ Tuubaa la dañ naan sëñ Tuubaa la kon maanaam dafay mel ni baat boobu ñuy wax ni Baye Fall la bu ciy dem ñu ne dana torox waaye bu demee ba ci biir moom lay yéem ña ca des. yaa ngi dégg. Mhm. dama dama la ne. Mhm. man mhm. pour pour ma leeral la ko. ndax yéen maa ngi leen koy junj ba tey. maam dama juddu fekkuma sama ay waajur jébbalu. ma ñëw di jàng école. yàlla dimbali ma ma mën jàng. loolu moom yàlla daf ma ko dimbale mën jàng ba samay professeur bi may bàyyi dañ ñëw ñëw woo sama yaay di ko waxa sa doom bi bu mu bàyyi jàng te boobu leen rek tax mooy dama bëgg daal di dem ay cant di seetaan Baye Fall man commencement ba affaire foofu la woon jaral na ma taxaw ba suba bi ma commencé tam di sikar di way sëñ Touba mu jaral ma damay dem daayira cotiser deux cent fexe ba sikar ah su ma amee su desee ma dem jënd caak rek soow dem parfois su ma ñëwee mu commencé di metti nag ay doo fi fanaan doo fi kii ngay fanaan ci ay mbedd yàgg naa toj cant gars yi topp ma kontaan ak yëpp te bu ma nee waa jaan jëf gars yi dem damay xool rek ci couloir bi fu ma daaj rek ma nelaw ba suba comprends nga bi dañ daan am ñaari dangay am toilette intérieure ci biir kër gi ak boo xam ne ci biti la ay couloir nii ku nekk am fa benn ci biti parfois bu ma ragalee couloir bi foofu laay dugg ma toog ma toog noonu si mhm, toilette yi ba fajar xam li ma la wax léegi sama jàng yàqu mhm. fu ñu ma dugal aussi pour ma liggéey mhm. danga may mujj woo ñi ma mujjee dugal sips naar bi daf ma mujj woo mu ne ma toogal ma toog mu ne ma lan lan mooy sa problème ma ne ko man aw ma problème parce que damay xëy di liggéey si te fii ay machine la te damay nelaw te mun na dagg sama loxo walla dara. ndax cant yi ngay fanaan. mu na ma yow sa papa sama xarit la te yow dama lay daggal salaire ma ne ko man woy sëñ Tuubaa laa bëgg mu ne luy loolu ma ne ko cant mu ne ma léegi loo gis ma ne ko ah man moom dama guddi ji damay dem di woy sëñ Tuubaa te bëccëg gi taxaw fii ci machine yi su yàggee da ngay waaru damay handicapé parce que may dagg. mu ne ma ma ne ko mu wax ko sama baab affaire yi metti ma ne damay way sëñ Tuubaa rek boobu nag doo xalaat sax ñu la ciy jox dara parce que booy dem daayira yaay préparé looy joxe léegi ñuy dem di dem di dem ba benn jour benn waay ju ñaan afiya kase moo jóge Europe ñëw ñëw tuuba boobu gars yi xamaguñ ma quoi mu ñëw seetaan si cant yi ay sikarkat yu mag nekk fa xam nga señ bi daa yàgg am ay sikarkat gars yi toj fa nag ba mu jeex comme li am léegi xam ne cat day am njóogu naan joxal kii mu tàmbali ak man daanañ ma def loolu man damay ñëw sikarkat yu mag yi ñooy sikar mu tas ku ne ñibbi après man ma ñëw taxaw ñaari nit a may déglu wala ñett ndekete waa ji li ñëpp dem may sikar moom mi ngi prête attention si man mu ne kii kàlla ñu ne ko njóogu la tudd mu ne booy bi dama koy produire waaw ah, Afia Kase la tudd mu ñëw euh, gars yi dëpp carte gi ne sëñ bi nee na dañuy def kasetu groupe kasetu ay daayira <coughs> dañuy def ay kasetu kasetu daayira comprendre nga benn doomu sëñ Afia maam awa mooy marraine bi sëñ bi yéegal ñu ci kaw terrasse bi boole ñu ba pare wax ma dégg. boole wax ma dégg. soxna si ne ma yow de sam papa li mu wax dégg naa ko mais segam nee nañ na ñëpp sikar rek yow garaawul demal ñu ne sëñ bi nee na ku nekk def benn son te sëñ bi yoonam neew si waa ji moo ne dama bëgg defal booy bi son. ñu ñëpp ñu ne ok. Mm-hmm. léegi comme que boo xoolee sëñ tubaar rek maa ngi ciy wax naan ku xeebu laa woon ku suufe laa woon. daanaka aw ma woon benn. kii daal ci ci affaire bi. jàppoon nga ni ci benn impact. non loolu amoon aw ma ci woon benn kii daal moom daal maa ci gënoon suufe daal. wala koo xam bu ay moom bokkoo si sax ñu dem di enregistré bon comme ñu ne xaw ma nu ñu koy waxee ci ay fas favori xaw ma outsider xaw ma nu ñu koy waxee noonu waaw. <laughs> waaw waaw nekkoo faveur. nekkoo orsay. waaw xaw naa orsay. nekkoo nekkoo nekkoo maanaam yow nekkoo ci ah. espoir yi. waaw bokkoo ci ñi xalaat. ci pour album bi. léegi bon comme que matoon nañ ay quatre kuy dugg rek gars yi dañuy fees si biir studio bi xam li ma la dañuy fees si biir studio bi nan la noo defel nii defel nii defel nii defel ne ba nga defar man su may dugg ci la gars yi nag nañ dem féexlu. barki sëñ Fallou gars yi ci la ñuy dem féexlu ndekete waa ji prise boobu ko ñoom awadi la awadi rappeur waa ji prise kii prise daal di ñu génn rek mu tëj bunt bi mu ne ma kaay mun ne ma noo tudd ma ne ko njóogu mu ne ma ñii nga àndal ñëpp say lan lañ ma ne ko samay samay waay lañ expliqué mu ne ma na nga góorgóorlu mu ne bu fekkee lii mooy sama métier li ma leen di prisal yàlla nañ ci ëpp barke. waa ji que ñoom awadi mii rappeur ñu enregistré ma def benn son onze billahi bisimi ñu enregistré teg ko ñu ne dañuy def si d'écoute ku nekk wax son bii dina toj kaset bi son bii dina toj kaset bi te son yiñ ñu tànn yëpp sama bos ci maanaam bu ñuy lim ci biir duñ la ci boole non non woo daal maanaam existé wu ma léegi Naar Diop moo ko doon produir Naar Diop men te mu nekkoon TFM jóge fa dem ITV Naar jël son yi dem këram déglu ko déglu yëpp dal ne dañuy tourner dañuy tourner clip vendredi jeudi ci guddi tombe may yóbbul sama yaay ay ay ay ay bagage fekk may yóbbul sama yaa ay bagage du ma ko fàtte mukk bagage yooyu ci pousse-pousse laa ko teg parce que aw moon oto pousse-pousse di ko poussé cité police ba HLM Fass yaa ngi dégg mhm. moo tax waajur lu am solo la may poussé pousse bi cité police jëm HLM Fass ma ñëw ba ci yoon bi jëwriñu daayira bi woo ma téléphone ne ma suba dañuy tourner clip suba na ñëpp ñëw ma ne ko ok ma ñëw weeru koor la woon ñu toog di xaar waa ji ñëw yàgg affaire bi yàgg ci biir pour waa ji génn ñu départ dem yàgg ci biir mu gi ñenn ñi génn dem ñibbi ne sama xel xanaa gars yi tourné tuñ seen clip bi waa ji génn ñëpp génn ñu teg kaar <coughs> daal di dem waa ji sama rappel naar boobu mi ngi yor benn deux port bu weex ñu dem àgg rek ñuy coow di coow ñu ne lan la naar ne leen yéen ñëpp dama leen di bege mais booy bi son bi su ma tëddee dama koy déglu ba day mel dama koy gént kii lii laay clip ñu ne ah mu tànn sam bos ñu ne nañ ko abal njaxas ñu abal ma njaxas Badou njaay moom ma abal njaxas Badou Ndiaye waaw moo abal njaxas mu commencé tourner rek taw bi soob seen sëñ naar ne oh affaire yi mi ngi bëgg a yàquwaa ah. gars yi ñu dem ku nekk di wax fa dëgër boobu doo tourné diw diw mu naan kii naar dem ñëwaat ne mais taw bi dafa mel ni moo defar affaire image bi quoi jox ko Mao Cissé mi ngi 2S Mao seetaan ko ni kii kan la ko Pa El Hadj Ndiaye ñu teg ko 2S bal bi tàkk. maa juge 2h dem TFM ñu ne dafa am benn émission bu tudd Tabala buy am TFM mais jànkat bi da ngay ñëw biir TFM maawo ne leen nañ jël booy bi nekk Medina ñu ñëw war ma jël Tabala en direct sëñ Afia ñëw ñëw en personne en personne affaire yi commencé nag di def nii. foo dem ñu naan diwa ngi nii di ma commencé di xàmmee. fa nga daan romb duñ la xàmmee te yaa ngi ñu lay xàmmee. ñu ma xàmmee. ngay dem cant ay ñaari nit di la bëgg ñetti ñeent. ba bës ñuy daayira ñu tas daayira bi. ne nañ ko arrêté parce que nit ñee ngi xeex ci biti ndax njóogu waaw. ma may may dem ba côté monument. place de l'Obélisque moo nekk place de la nation. benn pas. woo ma ma fatt fàttali dama booy yaay sikar fee ma ne mun a ma na xam ne ah du du du du du du course de vitesse course de fond la. maanaam buñ ko mënee tekk ci olof mooy bul xelu dem. bul njëkka tekkeen mooy bul xelu dem xelul dem. waaw mhm. ñu dem ci sëñ sang Diagne. Mhm. waa Daaru Xuddoos xam nañ ko. nga xam ne ñoom ay ñooy punkalu Daaru Xuddoos ñu dem fa yóbbu fa man ak Baba Danse benn artiste ñu ne ko kii artiste la dafa bëgg nekk artiste bu mag di tëgg ay sabar ñu ne ko kii xale la nee na si karkat la bëgg doon mu ne waa ji tàllal dama lay wax ay signe mu ne waa ji tàllal la waa ji tàllal mu ñaanal ko lu bari xool ma ne ma bu boobaa na nga xam ne du yow sëñ Tuubaa la ñaanal la. mu la la wax. na ma wax. bu boobaa du yow sëñ Touba na nga xam ne sëñ Touba xam nga yee ngi ñëw su màggal jotee pour ma sikar problème la. gars yi dañuy sikar ba mu tas ñu jox ma. màggal di waaj a ñëw ay da patra sonal sëñ bi ne ko dama bëgg a njóog ñëw 2S sëñ bi ne ma demal sëñ aafiya ne ma demal boo demee nga ne na ma ñëpp fekk xayra ma bëggal leen. ma bëgg ko wax Mbàkke yow fii pour ma sikar problème la sax gars yi xamuñu ma sax duñ ma sax jox ma bëgg ko wax ba saa ma ne garaawul waay baa ma dem rek ma ne maa ngi woo ñëpp xayra màggal yi ku fa ñëw ma bégal la am ku ne ma moo ko seetaane dama ree ba sonn ne kii moo dëgër fit ma ñëw xayra tag wàcc rek nit ñi mel ni dafa am acier ak acier di ma topp su boobu lu jaune laa sol du ma ko fàtte may remarqué nit ñi fu ma taxaw nit ñi dañuy taxaw ma dugg ci biir kër gi nit ñi fekk ma fa gars yi di histoire ak ñoom jugi leen fii kii day sëriñ ba ngeen ni xaw ma lan coow li ne kur nit ñi niñ toppee njóogu nii sañaafiya woo mag ñi ne leen ak lu mënti am fii ba màggal gi di jeex bu baaraamam metti maanaam fii ba màggal gi di jeex bu ko fi dara dal année boobu ay buum la leen utloo ne takk leen ci ci weñ yi. mu taxaw ci digg bi. waaw ma ñëw dugg ci baas bi ku sikar ba pare gars yi tàcc ba pare ne njoogu njoogu affaire yi nag takk léegi nag ma ne nag ñaar moo am kon man sëñ Tuubaa tontul na ma ñu doon wax ne damay torox ci ci dëkk daf mel ni mi ngi baax léegi nag li ci des mooy fulla ak fayda ma commencé lépp lu ma xalaat ne rek day jëmale affaire bi kanam ma def ko ma ñëw ne damay ut ménager boobu waxuma amul mais gisuma ko woon ma dégg ci lu ne sikarkat ñu lay fay ah, man dinaa fay ci ay sikar fekk boobu maam ummi Fall caatu maam Cheikh Fall moo ma woo ma toog xale yëpp toog ñoom ñu ngi ñu ngi dégg mu ne doom ji soxna Mbène Mbacke ubbi sa kalpe nga jox ko ma ne ko mukk maam gars yi ko ma ne bul werante ak moom soxna si di ma jox ay bii yu bari mu ne joxaat ko yu bari caatu maam Cherafal la ne bis ni ki tey dama bëgg ku lay sikarloo jox la lu bari boobu ñoom dañ yaakaar sama xelu bopp laay demee fekk dafa am ay bal yu tàkk. ci ginnaaw te gars yi yëguñu ko mu des sama sam mu seetaan sama clip woo ma may hésité jël mu insisté ma jël mu ne ma dama seetaan sa benn way kon yow bàyyeegoo affaire woy sëñ Touba yooyu ba tey ma koy déglu mu ne da nga ko mën sax léegi. ma ne ko mën a guma ko parce que ñaanu ko mu ne ma ah ma ne ko waaw mu ne ma loo bëgg ma ne ko nangami at a ngi nii mënuma la gis ndax affaire bii ma yëngu da yow sax doo ma gis man ma lay gis parce que daan naa ñëw ba rëbës ci magasin bu muy nekk taxaw seen ko nee demaat mais ñeme ñeme moo ko jegee da dul ñeme yegg ci bàyyi bi nga bàyyi liggéey beeg jàng bi di yëngu ci sikar waaw te amagoo ci ndigalam waaw que boobu ba muy toxu ñuy takk sunu bagage yi dana ma yow jaru nga yëkkati say bagage mun nga xool foo dem. kon loolu lépp dund comme ko bëgg damay dem ba rëbës ma taxaw xool ko suñ ma mayee parfum wala dara ma woo sama rakk yi may leen am dama leen ngeen jox paa bi mais ma ci feeñ parce que li tax paa bi doon def loolu dafa bëgg ñuy jàng bëggul woon ñu foyee suñ jàng du dafa bañ affaire bi de mais da ko jaaxal nit ne day bàyyi jàng ak yooyu daal ndax day sikkar lu mu xamagul su ma amee jàllaabe jox booy yi ne dem leen jox ko mais bu ma ci feeñ nee leen ko yéen a ko offrir di dem di dem di dem di dem mook sama yaay noonu noonu ba benn jour may si kapete seen gis sama yaay ci biir mbooloo mi ma arrêté dem saraxu ko bu ko wax sama baab moom mu jooy ne mu njóogu nii nit ñi nii lañ mel ci yow affaire yooyu noonu sama baab ne ma ñëwal ma ñëw mu ne ma yàlla na la ci yàlla defal sutura mu ne ma kaay ma wax la dama bëgg rek. dama doon bañ rek nga fooye sa avenir mais man sëñ Fallou uuf na ma sexal ma tàngal ma ne ko tàngal boobu mooy man yaa ngi dégg sëñ Afia wax ma lu bari ci sikar maam Cheikh Ibrahima Fall wan ma lu bari ci sikar duma ma du ma du tàmm sax di wax yenn yi mais man tëdd naa sax gént kuy tudd turu yàlla ma ciy topp du ci topp du ci topp di ci topp billaay wallaay ba doj ba doj jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall mu ne sikar ngay ut ngaangal ñu jox la ko billaay wallaay ma ne nag léegi man lenn laa xam damay parce que daayira Sam laa njëkk bokk doo ko dem daayira xiin ma ne man ñi ma am olof la ñuy làkk te dégg naa sëñ Touba maam Moussa bi mu ko njëkkee tagg en arabe la ko bind. Mhm. mu ne ko man yonent bi arabe la dégg ak ay mbokkam moo tax may bind arabe. del bind olof olof laa samay mbokk olof lañ. ma man damay wax ay olof nit ñi di ko dégg mais it ma jël engagement ne du ma way ko dul sëñ Touba. teg ménager teg groupe ba 2015 ma ne damay tëgg Sorano nit ñi reetaan ma fu ne dina xam ne du kër baayam ak loolu explique ma def ko entre 2000. sam papa ne ma dinaa la si jàppale di ci ànd ak man di ci ànd ak man di ci ànd ak man di ci ànd ak man ne ma bul ma solal damay damay boole ci ñi lay dimbali ñu jàpp le 6 février mu ci ànd ak man ànd ak man ba le 6 décembre mu accidenté décédé sur le coup mais boobu daf ma joxoon benn kaye benn kaye benn kaye bind ci ay exemplaire ne ma dangay am contrat premier exemplaire bi mu bindal ma contrat par exemple quoi mu bind cinq cent mille nga xam ne dañ doon ree ndax boobu pour ñu fay la trente mille problème la cinq cent mille moo tax biñ ma njëkkee fay cinq cent mille cachet biñ ma njëkkee fay cinq cent mille cachet dama jooy ba sonn. waaw sa xel dem ci cinq cent mille ba mu bindoon ci premier contrat. waaw léegi nag. ñu dëj saraxal ma ne gars yi sam papa daf ma ne woon sa bis bi yàlla na la suturaal te ñu bari duñ dugg loolu la ma wax ma ne sarax bi jeex na damay dem ma répété répété répété ba jour boobu dix neuf heures vingt kenn xaju fi boobu ba tey yàlla di def sutura fu ma dem nit ñi bëgg ma yëkkati seen alal jox ma topp ma yaa ngi dégg damay wax ne kat awma lu bari de mais am naa nit ñi yàlla tamit di def ouverture di ma booleek ay nit yu baax boo xoolee am na sànq koo xam ne dama ne na ñëpp jóg tàccul ma ko muy alaaji soxna dama wax fépp ci télé ak rajo ne daf ma defal lu ma kenn musul defal te kenn dootu ma ko defal alaaji soxna nit su déggee loolu danaan xanaa kii ay gratte la ko waa ji may dèjà xuloo naa ci ak nit mu dem naqarlu daal ne bon booy bi bon li ma koy may yëpp ah ndax sama jabar soppeem la am nga seetaan naa ko muy wax ne xaw ma kan defal na ko lu ko nit dootul defalati ah kon ce n'est plus la peine ñu xaw ma la ma ne ko jarul la peine sa waay jëlal ak sa la peine yëpp nga dem maa ko wax ci guddi gi ma dem émission DTV waxaat ko adduna lépp du xaalis kooku dix-huit jours yi sëñ mu jee def ci kaw suuf gannaaw yàlla su ma nekkeek sëñ bi moom moo tax te lépp lu ma doon taxawoo sëñ bi moom moo ma ko jox ba ni sëñ bi làqoo ñu yóbbu ko Touba dix-huit jours laa la wax ma nekk ak sëñ bi fii Ndakaaru benn taalibam xamu ko dix-huit jours mu ne ma njóogu suñ la bindalee piqûre buy jar cent francs ñëwal ci man am na ci benn somme boo xam ne nekk fi woon soxna Faatu la ma booleel soxnaam ma ñëw mu jox ma ay paquet xaalis lépp man ak sëñ bi man ak sëñ bi man ak sëñ bi des paquet la ay paquet ba ni sëñ bi làqoo ma dem këram jox ko yenn ordinance yi ak weccitam jour boobu dafa tuur xewal ne ma lii lan la ma ne ko lii ak lii ak lii ak lii ak lii moo nekk di barki Sëriñ Tuubaa te nit tuma defal lu gën a rëy sëñ Afia lu ndax bu doon am am du ma ko def awma ko mais daf loolu dafa kawe ci man yàlla di ma booleek ay nit tey xoola gis nga fi ñu bari gis nga fi ñu juge ay mbuur ñoom madam madame day caam ah gis fi ñeneen ñu jóge Thiès Afia mi juge ba Saint-Louis ànd ak sonaam comprends kon man sànq wax naa ko man sikar lépp lu ma ci amati bénéfice la man li ma doon rêvé mooy ñu dem ba sikar si ñëpp respecté ko ñëpp fonk ko ñëpp teg ko fu kawe xëy na nag soo comprendrewul commencement bi dangay ngay yaakaar ne njóogu dafa tëju chaque jour ma dégg ko dafa tëju del dem ci nit ñi déedéet man dama doyloo sëriñ bi sëñ bi ay tànn ay nit di ma booleek ñoom moo lay booleek ndey caam bi dëkk mbuur moo lay booleeg ki dëkk Thiès moo la booleeg moo lay booleeg moo lay booleeg jaam ñi man sama lépp dama ko jox sëñ Touba talaay man sëñ Touba laa bëgg man moom la nga camp bi ma njëkkee woote cant ci biir camp si cité police dama ko fàtte mu samay rakk ñu ñu toog sam papa dane service am lañ ko woowe service am service ne ko as njoogu dajale na bandi ndakaaru yëpp andi leen ci camp bi lu fi musul am andi nañ ay xiin taal na lamp de ñi ngi sant dëgg dëgg dëgg ñëpp di sëpp ci kii nii xam ak dëkkuwaayu camp ma ne gars yi sant leen nañ sant nañ sant sëñ Touba dem wax ak waa Nourou Daare ni ñu ñëw sant sëñ Touba nga xam ne même bu ma nekkul woon lépp lu ma am ci sëñ laa koy def te sëñ Touba mi ngi may dimbali man macha allah. aw ma lépp mais ñàkkuma dara lu ma bëgg sëñ Tuubaa fajal ma ko boole maag ñu baax yal yàlla fay di sant nag parrain yi marraine yi ñëpp sant dama naan tey laa mës a gis ku sikar bañ jox ko photo Mariama lii lu ma joto yéem la tey ci biñ la ko joxee ndax photo bi am na ci leneen wala ci feneen fuñ ko doon xalaatee tey ngay sikar bañ jox la ko. mais ku xalaat loolu xamoo. waaw kii kii sëñ Tuubaa ko bindal da ko bindal way spécial. muy fusti. Mm-hmm. waaw mais non jox nañ ko mais tey kuy sikar bañ jox ko ko. man Galaye Talibé Bamba tey laa koy door a gis ngay sikar bañ jox la photo bi donte li sëñ Tuubaa def waaye ngay sikar bañ jox waa xam nga nit xam nga nit moom nit li gën a foor ci moom la lay jox. nit li gën a fort ci moom la lay jox te kii. mooy maam Mariam mu sell bi mooy yaayu Yeesu Kristal mooy soxna su sell si kon ki ma ko jox nag dëgg la Marianne Alice madame le maire moom ku baax la chrétienne la mais neen dafa bëgg njóogu afiya ba nga xam ne léegi day déglu sikar loolu la kon njaago sëñ Fallou daal gëm na ni am na rawatina tey photo bii firndeel na ko ci bis bi waaw day déglu day déglu sikar vraiment muy muy ku baax man am naa am naa courant. waaw xam naa loolu mais dama ne photo bi photo bi photo bi man ak Afia mii ñoo biñ ma koy offrir ñoo ànd. ñu offrir ma ko euh, kii Ndar université bu Ndar am naa. am naa am naa courant. nit li mu gën a fonk. la lay jox. Ah. waaw kii moom mooy Mariam mu sell mi. kii moom sama saal laa koy def. incha allah sama saal laa koy sama saal koy laa koy laa koy laa koy def. Ah, waaw comme. waaw waa ci tuuti rek ci fusti comme mbind mi. waaw yow ñu jox la ko tey lan nga ñuy wax ci fusti ak mbind moomu. waaw xam nga sëñ Touba buy buy bind ci nit. man boog ni may déggee. à travers nit boobu ñëpp lay waxal. kon suy wax seetlu soxna Mariama bépp jigéen bu sell rek yaa ngi ci biir. bu baax baax kon euh, yàlla ñu fay yàlla fayal sëñ Touba sëñ Touba moo ñu dimbali yàlla ñu yàlla fayal sëñ Touba mooy nuyu nag mbooleem chrétiens yi dama bari ay ay xarit ay xarit xarit catholique bari naa ci torop dañ daan dem cathédrale ak yëpp changé suñu tur ki tudd Gilbert Albe yëpp waaw dañ daan dem cathédrale changé suñu tur ma tudd ay Jacques ki tudd Albert pour ñu mën a baal baala a gëli parce que boo nee njóogale yooyu dañuy xam ne musulman nga vraiment nga soppi ko pour mën a. waaw pour mën a baal ak gel yi cathédrale <laughs> kon yal na yàlla fayal sunu maam Mariama Sall mi. Mhm. waaw ginnaaw euh, li duuf ci nag bi xajul ci cin li dañ lay bàyyi rek ndax ñi toog di la xaar bari na te woote nit ñi wuy si la rawatina nga pare ñu lay xaar jaajëfal leen war na man sa frère Galaye Talibé Bamba maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax te xam ñu woon ñàkk a teew ci bés bi waaye Serigne Bara. da def la 23 moom la 24 mu war a def lu ñu fay xaare njóogu muy baatu tàggoo. rek xanaa ñaanal ko rek yàlla defal ko ci sutura ak ci barki sëñ Fallou sant nag bu baax a baax ñi fi ñëw ñëpp jàpp ci lépp lu fi dëng ñu baal ma ko lu fi jub ma sante ko sëñ baax a baax Fadal jaajëf di leen jégalu bu baax a baax yàlla nañ ko fekkee déwén ci barki sëñ Fallou santaat ñëpp. santaat ñëpp ñi ci jàpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waaw ñi ci jàpp ñëpp benn benn mare nañu ne toog ndey caaw boo ko tuddee tudd ñu tuddee ñëpp mais di sa ziar sëñ Cheikh Mbacke jërëjëf mais nag di jëlaat sant gi yëpp nag sant nag sama waa ji alaaj soxna bay fal waaw mu koy sant mille fois koy sant fépp ku ku ko mënul xajoo bàyyi ma ak moom man moom yàlla daf ñu boole boole jël la wala boole tuur te damay ñaan yàlla dund ba koy andil ay teraanga yu mag yéene bi mi ngi fi waaw yàlla na kàttan gi ñëw El Hadj maa ngi lay remercier bu baax la ñaanal yàlla na sëñ Tuubaa jàppale fay la suturaal la yokk la ba nga yëg ko yàlla na la sëñ afiya jàppale El Hadj su ma amoon lu ëpp ñaan ma def ko jërëjëf El Hadj yàlla na yàlla fay suma yaay tamit yàlla na ko fi yàlla yàggal mu fekkee yàlla na fekkee waaye bëgg naa mu fekkee yàlla na fekkee sama soxna tamit vraiment daj ay coono ndax bu ko neexoon ñëw ne ma kat bàyyil ma ma solu toog dama koy def mais daj ay coono moom fi njëkk yàlla na ko yàlla fay vraiment muy ku ma respecté ndax tamit man seeg man yomb na yombul ndax sama ragal dama ko jox Sëñ Tuubaa sama bëgg dama ko jox siñ Tuubaa man du ma ragal sax góor wax ma laa jigéen kon booy seeg man rek dafay metti mais ànd na ci ak man jox na ma respect total waaw kon yàlla na ko yàlla jàppale may ñu njaboot gu barkeel waaw yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm aafiya rek waaw